benn programme boo xamante ni ministre commerce. Mm. Euh, da ko fekk Kaolack. mais mm. ci saa si moom dafa jubal si Touba. Mm. moom fi njëkk. mais am na benn programme boo xam ne programme de euh, loo xam ne dañuy yeesal marché yi. mais marché Ocass am na nu mu bindoo noo xam ne xañ na. Euh, dafa am lu particulier. ndaxte yeneen marché yi. espace public la. boo xamante ni état bi moo koy moom. wala maire bi moo koy moom. mais fi ne fii boo xoolee ni mu bindoo nit ñi ñoo ko moom te loolu dafay laaj nag waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom lañ ko séqal diggante maire bi diggante borom place yi boroom kër yi nga xamante ni dañ fi def place hmm. waaye tamit ak ki nga xamante ni moom mooy ministre du commerce hmm. loolu waxtaan la laaj hmm. mais su doon espace la boo xam ne dañ mën a ñëw rek daaneel lépp daal di koy defaraat loolu beneen mbir la. Mm-hmm. mais ni mu bindoo la. Mm-hmm. mais du tey lu nekk rek dañ ciy wut jàngat. Mm-hmm. lii am nii tey tamit jaar na laaj jaar na ñu waxtaan. jar na ñu xool yan yoon la ñu mën a jaar. ba yéen ñi nga xamante ni yéenay borom place yi. alhamdulilah bi ngeen xamee ni am na nécessité. pour ñu defaraat. parce que defar boo gis dina am loo xamante ni dina am euh, ay inconvénients yu ci nekk. mais loolu yëpp dañ koy waxtaanee. ba mën si tënk te li nga wax léegi nii président de la république yëg Euh, bi lakk bi amee ñu dal di ma ko yëgal mm. ci saa si dama ko woo mm. bi ma ko wooyee mu ni ma na nga woo sëriñ bi mm. nga xamal ko ko sëriñ bi man maa ko yëgal sëriñ Mountakha man maa ko yëgal woo naa ko jot ko téléphone wax ko ko ba pare ni ko jot naa ndigalu président de la république ci saa si ma dem Touba su ma demee wax ak euh, général bi fekk boobu ñu ngi coordonné téléphone lépp lu ñu am ci ay moyen ak secours yi wër Touba ci saa si lañ ko dal di yabal ñu ñëw fii moo tax gis nga. lakk gi metti na. waaye yàggul. te mënoon na gën a metti. Mm. kon ñu ngi masawu. ñi nga xamante ni dañu yàqule. waaye sant yàlla bi nga xamee ni tamit ci saa si mm. état bi organiser secours yi ci ndigalu mm. président de la république mm. ak ci coordination premier ministre bu mu gën a gaawee loolu mooy li nga xamante ni bëggoon naa la ko wax te xam naa ni liggéey bi dinañ ko wéyal ànd ci ak gouverneur ànd ci ak préfet mais ànd ci tamit ak sapeur pompier ak gendarmerie ak police yëpp loolu bëggul wax di leen gën a masawu waaye di leen wax tamit ni loolu yëpp dinañ ko ànd xool ensemble incha allah incha allah délégué euh, Serigne Seydi Dieng leeral na ko Euh, marché yi dañuy seetlu lu bëri ministre du commerce mi ngi nii xam na dina ci mën a indi ay yeneen leeral mais li nga xamante ni wóor na mooy marché yi dañu seetlu dafay am problème toujours pour yegg ci yenn bërëb yi bu ci lakk amee loolu nag am na benn programme boo xamante ni bu yaatu président la république di ko doxal dénk ko ministre du commerce mu ciy def liggéey bu rafet boo xamante ni dañuy ñëw euh, xool bu fekkente ni marché bi dëppoo na ak lépp loo xamante ni dañu ittewoo ay matuwaay ba su fekkente ni jéye am na yàlla bu mu am ci saasi service yi nga xamante ni dañu war a fay lakk yi muy sapeur pompier du ñu am benn difficulté ngir yegg fi nga xamante ni fa lañ soxlay yegg wax nga léegi Euh, ci lakk gu fi amoon seeni sëñ seeni fàttali na ko boobu ñëwoon nañ taxaw ànd leen ànd ak ñoom hmm. jàppale leen ci lépp li nga xamante ni mooy euh, ci li ñu yàqu non li ñu yàqule ñu ut lu ñu leen ci jox loo xamante ni daf leen di daf leen di dimbali maintenant marché Ocass dafa am particularité hmm. marché Ocass dafa am noo xamante ni moom la bindoo hmm. am na marché yoo xamante ni état bi moo ko tabax ci bërëb bu euh, nekk espace public am na marché yoo xamante ni maire yi ñoo ko tabax. mais marché Ocass ni mu bindoo ci ay kër ak ci ay place la yoo xamante ni seen ay borom ñoo ko moom wala ñi ko moom dañ ko luye ñeneen. loolu nag moo gën a naqaree xaw a defar tuuti. foo xamante ni état bi moo ko moom. wala maire yi moo ko moom. loolu dafay laaj waxtaan boo xamante ni dinañ. ci waxtaan ak sëriñ bi. waxtaan ci ak ñi nga xamante ni tamit ñoo moom place yi. loolu mooy li nga xamante ni mooy jafe-jafe bi ci gën a kawe. bon Serigne Seyni xam na li may wax. Mm-hmm. tey boo ñëwoon tey fii bëgg fi defaraat. waxtaan wu yaatu lay laaj. Mm-hmm. waaye ñi ko seq tamit il faut que ñu ànd ci li nga xamante ni moom lañ leen bëgg a defaral. Mm-hmm. loolu mooy particularité. président de la république bi mbir bi amee dama ko ko yëgal mu daal di may jox diggal ci saasi ni ma na nga woo Serigne bi nga wax ko ko Serigne bi bi ma ko wooyee man maa ko yëgal ni ko jot naa ndigalu président de la république euh, son excellence Macky Sall ngir dem Touba Euh, waaye laata may yegg sax dina coordonné ak le général des sapeurs pompiers nga xamante ni li ñu amoon fii ci Touba ci engin euh, bi ñu seetloo ni dayo lakk bi toll dañu ittewoo woon indi lépp lu ñu wër fii ci Touba ci ay wàllu machine engin ak lii fay lakk moo tax soo seetloo oto yi yegg si jóge nañ Daaru Muxti jóge nañ Jurbel jóge nañ Bambey jóge nañ Gosaas jóge nañ Kaolack jóge nañ fas Bërigo donc foofu yëpp ci saasa dañ leen woo ni bu kenn toog na ñëpp ñëw jubal si Touba mën a fay lakk gi am na lu fi jot a mais bu fekkonte ni ñoo ñëpp ñëwuñu woon dina gën a metti te dina gën a euh, xañ na euh, weesu fii loolu nag mooy rôle état état réactivité la bu jéye amee ci saase bala moo yàgg li gën mooy jéye bañ a am mais saa yu amee tamit ci saase war nañ organiser secours yi ci diir bu gàtt li nga xamante ni moom mooy jëyee jooju ñu euh, indi ci saafara. Hmm. li doon gën a nekk urgence li gënoon a jam mooy ñu fay lakk. te yàlla dimbali nañu man laata may dugg Touba sax général bi nee na ma li fi nekk ci mooy ak tamit. Hmm. may rafetlu loo xamante ni xam nañ ko Touba. Hmm. waaye tey feeñaat na tey. mooy population yi. gis nga ñi dëkkee Touba. ak ñi dëkkee ceetu marché bi. bi mbir mi amee rek ñoom ñëpp dañu dal di jug. ku nekk jël sa siwo ñiy jël seen pan ñu indi ndox di ci jàpp. loolu euh, dañ dañ koy rafetlu. loolu acte citoyen la. ak waa Touba ci kanam. ak waa ci kanam. ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. loolu acte citoyen la li ñuy xaar ci ñi nga xamante ni mooy population yi te alhamdulilah fii ci Touba gis nañ ni lu fi yaatu la bu dara amee rek ci saa si dañuy gis seen taxawaay ñu ñëw nekk ci wetu sapeur yi maanaam lépp lu ñu yaakaar ne buñ ko defee dina indi saafara ci li xewoon. Mm. gis nañ ci seen taxawaay bu mat sëkk.